Sow production ñoom ñoo ko taxawal Makan Mbengue nekk ci boobu ñu war a bëri xam naa le premier janvier <laughs> premier janvier a ah, moom la ñuy bëree premier janvier 2022 non premier premier janvier vingt moo daan da fàtte wuñ ko Bombardier Balla Gaye 2023 Balla Gaye Boy Niang 2024 Modou Lo Boy Niang kon yàlla nañ ko fekkee tatal ko 2025 vingt cinq ak Reug Reug bëri ci wala da ngaa bëgg beneen. incha allah parce que am na beneen bu may dégg. de am na beneen bu ma fi dégg sànq de. kan laay njëkk a nuyu mu danta nuyoo woon nañ mais man man man man nañ leen a bàyyee ñu nuyuwaat Père Pala ngi ni Père Pala ma jama Père Pala ma jama ngi ni waaw Père Pala ndeysaan tey nag ñaari xarit yi ñuy seq contrat ñaar ñu miinante est-ce que xam nga ni père taawam kee la ko tudde waaw liñ naan ànd bu yàgg bi dëgg la yàlla na sax ah waaw na gën a yàgg waay non père noonu lay def père moom ci nekkee ci contrat moom day aju moom père moom bu nekkee ci contra moom ah contra la père non non père waxagul mais rek ménager du Sénégal. dégg wax la. père maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaar am teel micro teel micro onze bi kalimaati laay taamaati min maa xalaq ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu assistance bi yëpp jiital ci nuyoo bi nag Makan Mbeng mi nga xam ni. moom mooy directeur structure bi wala muy président yi bokk sax ak coordonnateur am Abdoulaat di nuyu sama rakk sama xarit Alaaji Paala Diop di nuyu ñu ma àndal Tafa kànji ak euh, Assane Niang di nuyu rek képp koo xam ne yaa ngi fii di wax ne Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc li nga xam ni ñu ngi koy dëgmal yàlla def ci jàmm def ci xéewal boo ñu def ko mu am réussite ci promoteur bi am réussite ci mbër waaw kon ñu yem foofu rek ba xam lan la ñuy kon li wax di wax xam nga ci dégg déggoo mi ngi doog am parce que yaa ngi gis ni ñu toog signé contrat mais bu ñu signé contrat déggoo amagul léegi nag combat du taxaw tant que lu mel ni xewul man depuis presque un mois ñu ngi may wax combat bii. mais même version rek laa ciy wax combat pour mu taxaw dafa am ay forme yu tax mu taxaw bi ñu ci yeggee nag léegi ñëpp mën nañoo jàpp ni combat Reug Reug ak Boy Niang taxaw na. boobu ba léegi maa ngi koy dégg à travers même ay agent de presse sax ñu ngi may woo dégg nañ seen combat taxaw na seen combat taxaw na alors que combat bi taxaw woon. non Makan yàgg na ci combat bi Makan yàgg na ci komba bi parce que bu ñu la waxee ni bi mu fisalee ak. rëg-rëg ak léegi rek ça fait presque quinze jours oh, sinon plus kon moom yàgg na ci affaire bi mais li desoon combat ñaari parti ñoo koy dox benn bi defar nañ ko bu mu baax beneen bi mu ngi doog a sotti léegi nag ah ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin te ñu ànd ak ndam waaw. lan wax waa Pikine. nag dafa jot ñu toogaat conscient xam ni 2018 dañoo àndoon am neuf points ñu toogaat seetaan sunu bopp ba am ba perte neuf points kon li ñuy wax rek mooy ñu ñëpp jóg ñu nekk benn préparer combat yi nga xam ni moo fi xew combat yi nga xam ni xew na ci am a balde Gris Bordeaux combat mo seen Sa di préparer aussi combat Boy Niang ak ak euh, Reug Reug en tout cas ñu ci ñaan yàlla ndam di wax ni rek Pikine bu ñu àndee nekk benn lépp lu ñu wut rek dañ koy am mais suñu tasaaroo lépp la ñuy perte kon nag c'est le moment ñu toogaat waxtaan dajaloo nekk benn pour réussir. naka nga ah xam naa xam naa Reug Reug nag parce que Reug Reug daf fee def lu tax ñu mun koo xam xam nga am na mbër yoo xam ne bu ñu leen di tudd te ñuy laaj naan kooku mooy kan ak lan la mën ak lu mu mënul. mais koo xam ne dafa étale ay potentiel am ci lamb simple wone ko ci frappe boo nee xamoo ko ah da ngay wax lu neex waaye nag mun wóor na ma ni Boy Niang am na capacité boo xam ne mun na koo exercer ci bés boobu pour réussir combat makan meeg maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu assistance bi yëpp. di am contentement ci daje bii ñu daje. ndax dajab jàmm la rek. bu ñu mënee def làmb ci réew mi dafa fekk jàmm nekk am ci réew mi. yàlla na jàmm ji sax. Hmm. di nuyu suma doom bi Makan nga xam ni xale la waaye fi baayam tegoon tànkam rek la teg tànkam. di liggéey di ci dimbali ay xale di ci dimbali ñëpp. yaatal ko kooku tamit maa ngi koy nuyu di nuyu coordinateur am njaay Ndiaye l'infatigable di xale boo xam ni moom itam lu mu dugg rek ndam la ciy bëgg mm-hmm. maa ngi koy nuyu di nuyu ménager yi fi toog ak ñi fi daje ñëpp di wax ni daal bisu tey bi bis bu am solo la ci ñun mm-hmm. waaw léegi xaatim ngeen contrat bi Reug Reug ak Boy Niang waaw xaatim nañ ko parce que ñoom ñaar ñëpp suma njaboot lañ waaye làmb moom moo leen soxla kenn ku ci nekk yaay may sa moroom xaalis kon bu ñu demee ba yegg foofu dañuy bëre waaye bu jeexee rek day daal di jeexaat ndax bul fàtte ni yor naa buy guy gi keroog ba ñu bëggee bëre ak moom dama ne ko bëre leen ñu bëre ñoom ñaar booy ñang daan ko lépp rafet mm-hmm. ñun ñëpp ñu àndaat dem ñibbi daan bi yor guy gi mu bëre ak Ama mm-hmm. daan ko jël oto ba mm-hmm. ñu revanchaat Mm. Ama Baldé daan ko mm. lépp di rafet kon loolu du gan si man xale yi ñooy mayante xaalis mm. dañu ci toll nag te ku nekk ñaan nga yàlla yar mbër ba mu dem di bëri ay millions foofu la ñu yegg ñoom ñaar eh, di ci woote jàmm di ci woote fair play di ci woote discipline di wax ne daal derby banlieue la. derby banlieue la comme nag euh, date bi des na lu bëree bëree ah, bëri. duñ ci mën a sori. Ah, waaye xam naa ne daal euh, ñaari xale yi daal. ku ci nekk li nga war a def yaa ngi koy def. ñaari mbir danañ ci gagné waaye amateur aussi dinañ ci gagné. amateur yi ah, dañ ciy gagné à 100 pour cent parce que ñaari xale yu mel noonu boo leen dajalee ñu jëw dëgmal loolu waaj bi rek amateur yi dañ ciy gañe mm-hmm. loolu nag ah le grand promoteur nag moom moo ko def di xale boo xamante ni daal na ko ñëpp ñaanal pour yàlla may ko réussite ci li mu jëm. jërëjëf. dina baax waa d'abord Lamine santaat yàlla xam nga li tax jara sant yàlla dafa am ñaar ñoo xam ni muy ñaari manager kenn ki c'est le manager de tout c'est le président de tous les managers du Sénégal Alaaji Burkhane Wade nekk benn manager ci Boy Niang feggoo ak Tapha Kandji ki nga xam ne doomu ndeyu Boy ñaa la foo ko seen seen ko so loolu suñu borom dogal di nuyu seen mag Abdou Kañ ak la famille Kañ yëpp ci engagement.